comme ñëpp di jouer régional ay école police temps yooyu <laughs> suuf si am pagay donc après ñu nekk ci ba 2007 mon dernier match c'était le 4 juillet 2007. waaw où ma am benn ligament benn blessure après ma arrêté donc année yooyu aussi j'étais avec des grands hommes comme Mala ñoom ñoo ñu yoroon. Mbengas mm. Baye Mbeng Abdou Diatta. capitaine dem si yàlla si. ak euh, Aba Gueye ñoom ñoo fa nekkoon après en 2007 lorsque je me suis blessé dama bëggoon a dem. Mhm. mais comme y avait des gens yoo xam ne dañoo am tuuti flair. Mhm. ñu ne ah booy bi kat nañ ko bàyyi fii. Mhm. donc au départ je voulais pas. mais okay. comme comme maa ne góor la boo xam ne boo am expérience la. des fois les daf ma doon woo école football bu génération foot. y avait les waagaan les kila saa yu ma ñëwee mercredi rek su may ñibbi rek mu dóor ma xam nga <laughs> <laughs> waaw jamono yooyu affaire yi dafa xaw a métti. Mm. après nag léegi finalement may commencé saa yu mercredi jotee sax man maa koy woo. <laughs> góor gi entraînement am na. jaawa saa yu mercredi amee wala samedi rek ma woo ko. ensuite ma ñëw mon premier match bi ma njëkk a jox ma officier ko en cadet j'avais les Abdallah Ndour. ah les Mayoro ñoom ñëpp après ma tatier junior bi. Mm-hmm. avec euh, les Jules Boucher. les Mamadou Gaye Six période boobu ñoom Sadio Mané la woon. waaw mm. ah, ensuite ma ñëw continuer di persévérer di liggéey des fois je vais en détection jëli joueurs yi ci àll bi dellusi mm-hmm. toujours à Génération Foot. après ensuite depuis événement wu ñoom Janjaay Sabali tout ça ñu nekk maître ñoom Lamine Guèye moo nekkoon sama premier réellement année boo xam ni man maa yor. U17 génération foot. d'accord donc ma jël leen on est parti jusqu'en en quart de finale du championnat régional après par la suite suñu demi-finale jour BFM lañ ko programmé et j'ai refusé. Mmh. j'ai refusé sincèrement. ñu ñu déclaré forfait ñoo newoon meilleure attaque meilleur buteur donc ma déclaré forfait ensuite je suis venu à Djibi ñëw je suis revenu encore chez les juniors Olivier bi mu jëlee reenu équipe bi il m'a pris comme adjoint ci. biesu kër gi yëpp ñoom Talla ñoom Pa Mara ñoom Madi Touré ñoom Pa Thiam ah Olivier ne ma tu es là gars yi ne ma tu es accompagner Olivier Perrin. te Olivier ci ban secteur nga gënoon accès sa liggéey ci équipe am bi. bon ci aspect défensif défensif aspect défensif bi. waaw tout ce qui était défensif man maa ko géré woon. Mm-hmm. est que loolu feeñul ci bi nga yor tey bon bon même bi may football défenseur laa woon. ah même bi may football défenseur laa woon. <laughs> en plus ba tey ba tey j'ai un homme boo xam ni saa yu génération foot jëlee but du ma ñemee jël sama téléphone. muy l'homme qui m'a formé Maala Mané. Mm. day jël téléphone am woo ma xas ma saaga ma rectifier ma. Mm-hmm. sincèrement. Mm-hmm. du ma ñëwee sax jël su ma encaissé rek du ma ñëwee jël. <laughs> donc ensuite ñu ñëw ak Olivier lorsqu'on est venu avec Olivier yàlla suturaal ñu ñu jël championnat bi. Mm-hmm. année bu ci top ñu jël coupe du Sénégal après Olivier dem dem ba may ñëw ñu jëlaat championnat bi ma doon adjoint Demba Mbaye. ok ñu jëlaat championnat bi après Djibi ñëw ma doonaat adjoint. Mm-hmm. donc ci ñu ma jàng dañoo bari. dëgg la dañoo bari parce que xam-xamu ñëpp laa la laa sàcc yëpp ku ci nekk dompoon naa ci yow. Mm-hmm. bon ba ren yàlla dogal li muy dogal. ñu ñëw rampe nga rampe nga. waaw xam nga li <laughs> waaw rampe naa ci kër gi ah, waaw waaw rampe naa ci kër gi nag. mais mm-hmm. rampe bu jaar yoon la parce que ñi ma yor ñëpp. képp ku ma jaar aussi yëkkati nga sa xam-xam jox ma. képp ku ma jaar aussi nangu naa doon sa taalibe. jàng tarbiyu. waaw ah, ci ñoom ñëpp nag. ñëpp ñu ma jaar tarbiwu naa ci ñoom. Ah. ren biñ la nee da ngay ñëw jël est-ce que. yaa ngi waaw waaw xaw xaw xaw naa xaw naa tiit tuuti <laughs> après yi woo ma ne ma non da nga koy jël da nga koy jël yow yaa fi ne da nga koy jël. waaw hmm. ah. après comme ñoo fa nekkoon début saison ak euh, Moussa Ndiaye. donc on travaille collégialement chaque fois dañuy waxtaan ci lépp lu ñuy def. Hmm. ba tey lépp lu ñuy def dañ ciy waxtaan mais comme foo dem rek am na njiit. waaw hmm. après li am. ñëpp jàppale ma nag kër gi yëpp jàppale ma ah, wax dëgg yàlla depuis depuis le le mm-hmm. le vigile mm-hmm. ba mun naa ne au fond fond Sénégal mm-hmm. parce que barki maa ngi koy wax j'ai dit que la victoire là c'est la victoire d'une académie et puis li ngay wax ni aussi euh, je pense que ce parcours bi euh, ça aide aussi parce que tu un coach qui connaît la maison est que loolu aussi euh, je pense que point fort la pour euh, entraîneur. waaw xam nga kër soo fa defee vingt trois ans. <laughs> soo ko xamul moom. ñu laaj la ko ñu laaj la ko donc xam naa kër gi yëpp. Mhm. ah macha allah yor ay ay mag. Mhm. ay tonton ay rakk. Mhm. ñëpp ñu moo ñoo xam ni dañ maa tette. xam nga soo yore soo nekkee nit nga nekk ci biiri nit. ñëpp booleendoo. même bu naxaree sax dinañ ma ko wax. mais mais dix minutes après dinañ àndaat ak man. donc nag loolu. ndam du du ndam. mais yow sentir nga ni que lii euh, vocation la bëgg nga ci sori et voilà défi bu bu gën a jege mooy Afrique bi ah. <laughs> <laughs> c'est une vocation oui c'est une vocation. Mhm. aujourd'hui comme je l'ai dit nous sommes là aussi pour progresser. Mhm. et on progressera avec Génération Foot. Mhm. ba fu muy yem. comme moi j'ai débuté avec les deux ballons et une table. Mmh. a débuté avec. Aujourd'hui nous sommes en train de <laughs> donc on est là on est de progresser avec génération donc nag franchement je remercie tout le monde tous ceux mm. qui ont fait confiance en moi tous ceux qui sont en train de m'accompagner mm, et tous ceux qui sont par exemple nos parents ah yaay joueurs yi keroog bi ma ko waxee journaliste bi dafa taxaw xool ma ma ne ko ndamu génération foot la ndamu euh, village de Déni Biram Ndaw la ndamu commune de Bambilor la ndamu ville de de de Rufisque la. Mm. ah ndamu dakaar la ndamu Sénégal la. parce que foo dem ci Sénégal am na kenn koo xam ni mu ngi jàppale GF. Mm-hmm. parce que lu tax GF dafa am benn philosophie boo xam ne moom lay def à chaque fois. Mm-hmm. gars yi xamuñu ko mais tey moo indi ñëpp autour de GF. c'est-à-dire les détections yu ñuy dem fekki gars yi ci biir région yi il nous arrivait des fois di yéeg ay Jakarta. Mm-hmm. di yéeg ay Jakarta pour dem defi pour dem di dénicher des talents. te loolu lépp c'est au nom de GF moo ñu ko may di remercier le président. di remercier le ménager général muy frère. Mm-hmm. di remercier toute personne boo xam ni tey jàppale nga Balla. Mm. ba mu yegg si fii. tout tey jàppale nga équipe génération foot ba mu yegg si fii. tey si je parle booy sama joueurs yi seen wàllu bopp j'ai la la, la, la chair de poule mm. parce que joueurs yi tey fiñ fiñ ñu jëlee mm. liggéey bu métti la woon mais nag tey ñoom dañoo nekk à la hauteur wàcc liggéey pour rek yëkkati génération foot. très yi ñëpp jàpp ci. félicitations ñëpp jàpp ci mënumaa toog nag di lim parce que ku ci nekk leer na ma ni <laughs> fi ma jaar ñëpp ñëpp a ngi toog. tey depuis barki démb ba léegi. Kédougou xam nga sama papa agent eaux et forêts la woon. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm. donc pratiquement j'ai fait le Sénégal. Mm-hmm. donc fu ci nekk am na foo xam ne fubal naa fa. Mm-hmm. ñii encadre nañ ma ci lii ñii encadré nañ ma ci lële mais ñëpp daal tey di gërëm ñëpp di gërëm génération foot. di gërëm Sénégal yëpp di leen gërëm yéen itam. yéen ñu ñëwoo ak ñi ñu toogal ci plateau bi. <laughs> wax dëgg yàlla. ñaanal leen ñu nag. ñaanal leen waaw ñaanal leen ñu. yal na yàlla yokk yëpp ñaanal leen ñu. alors yow tamit yow la ñuy jeexalee ah ci bon liggéey bi vraiment.